وين ون نحور جئن دال الخدوم لإيساف المعرم يوم السبع في الأرم بديوبا يوم نكي دب تيري وخون نكي المهدي يو مهدي متيري وحد النيل ليسا ترانسك وبقى دايك من يشتني أغنياري تيمير أجروم كبجروم waaye at mi bàyyi laay sunu mos mi gane àdduna moom mille huit cent quarante trois la booba gàddaay gi mu ngi ci junni ak ñaari ak juróom benn fukk ak ama suxoru na ni su sandin taarin fi asir am mille huit cent quatre-vingt-deux biddéewu laar boobu ngeen doon dégg mi ngi ñëw mille huit cent quatre-vingt-deux booba gàddaay gi mu ngi ci junni ak ñetti مم سيدنا الإمام دي وحنا ولا ما رانني فلا ألم ألم من خوف أمر الجنة وعسى بين أن بما كسر فيديو بي صوخ كلا خميني ما نبقواتي فيديو لاربوما ميل ريسا كتران دولة أما دعوة رسالة ربي إلى الخلائق أتمي موتي موم بايلاي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي جيجي 1883 la booba gàddaay gaa ngi ci junni ak ñetti téeméer ak benn at amal wa qudumi min al idra ba ñu ko sonalee soow ka nañu sonal woon ñu jëkk ñi ci seen goote ba mu gàddaay bëgg ak ñi bisi ga 1886 la booba gàddaay gi mu ci junni ak ñetti téeméer ak ñeenti at amaru joo un nag ñi ko li bayaani ba nga xamee ni vidéo bi si la nag di si بابن ميل نصا بلا اما وفات بعض القرون اب ما في لا لنا من لنا ما من نصا نص خام خلافة سيدنا عيسى ولا أربعين سنة سيدنا عيسى نتخو نين فكي أب ودقي سيدنا ربنا نبايم أبلي في العمال gannaaw bi ndee dina nu gëm te jaamu. gannaaw bi ndee dina nu gëm te jaamu. gannaaw bi ndee dina nu gëm te jaamu. boo déggee sëñ ma wax loolu. borom. fab rabbaani. ba muy biral yoon nax diyu. waxoon na ni. gaawam maanaam ki kay ki kay xilaafawu kooku day day day day lëm day lëm liggéey saaba ya ki nga xam ne mooy wusu mahdi day lëm liggéeyu saaba ya waaw waykat bi na doon na na bàyyam adalay ki la amee te naa bindee بمنعدهم فداما منعدهم فداما كنعم بلاه منعدهم فداما عبد الله لك لم بفر لا ينرد فك من ينفك لولا سيدنا عيسى وصل الإمام المهدي في خلافته صحابة رسول الله يا

يو بي جنسي دي تكتل كل كتاب عدنا كيو كيو توحي فكان بل عدنا في البدن قد يروا في أسفة الإذنة النبي في الكرم بابا كيك زب تنك تنبيني هو فجر لدى جن بابا كتا يجنون في جن أني في كامير أجرون بالنفق أجرون يك كلمة فاك دلالة تحييما له أبدا إلى ارتئال من الدنيا إلى الخدم لأن تكتل فيديو بابا دي بيرل لغسك ينتهي سينا إذا أصل جمع الآخرة كالنادئين برسل الله يا عجبا كمثل موسى كلم لا يخيرني ñooñu nag ñu jiitu woon di yonente yàlla ya ñoom yonente yàlla Moussa ak ñeneen dul ñoom te ca lañ yoroon ci la ñooñu jaar ñu ne góor gi na kon ndax Seydina Isa am na benn docteur boo xam ni doon na ka faj ca tawat ja mu ne ismu tabibu lati kaana sifaa dawoo Ahmadu Saar laminun saayibul alami mu nu turu docteur ba nga xam ni doon na ko jox ay garab Moor Saar lañu ko doon wax ku ñu wóolu ko kay borom xam-xamu docteur وهي بعد ما أثبت تعفن كمنى فآثر بثوار مات في الأرم بوح من لكن نجرم ينجوير يما فكيل بجوير جوير قري لسن نبوي جبرم لكن توفي يوم الأحد وقت صلاة العصر تضطرب أناس كلهم من سيمورو بان وقت لعبن بسلا من منجي نلو bisu dimanche ñu nekk ci ban waxtu mu ne ca tàkkusaan waaye nag te kërëboo rëngi-rëngi na unaasu nit ñi ku liim ñëpp ba nga a ni nag nit ñi yëmbu na yuuxu fa saatil bintu iyatu aabi maana su daay xaama sayidina min maljai samami ba nga xamee ne doomam ci jigéen di nga wax maana na la sayidina isa dal lu jógaat taxawaat nag ci àdduna fa ñu ko doggale woon bu tëdd nee na waxtu woowu mu nelawee ci takkusaan ba dëkk ba yëngu doomam yuuxu la dal di jógaat nag taxawaat yaa faailan fasjuruhum summa xaraja min bayti saxirin ila alkabiri muxtariji mu dal di laaj lu ngeen di wax ñu seen ay tax waaye suturaal leen ma ay dal ngeen jàjja daal di jóge ci bu ndaw bi mu nekkoon jëm ca bu mag ba ngir ci néeg bu ñax ba ca la nelawoon foofa ca heure booba ba ñuy xoo mu jóg jàjj leen dugg ci néeg bu mag ba ñu ne waaw sëriñ Moodu mu ne qad qaadawu ibnu bammarke wa aisatun saqiqatu fa wusulu bayti il isa mu ni ba mu jógee moom sëy naa isaa fa mu tëddoon sëñ na saasuma ba mu jógee lëng na ko doomi Bamar Gueye gi ñuy wax Ablaye Gueye Bamar ak ak jigéenam moom fii na ay saa ba ñuy wax ay sa seen ñun ñoo ko lëng bu ñu bugg ci nit bu mag ba. يفهم رجل قلوب أهل قريته للفرد شدتي آم على نسب نبو دغينا وكمبرين سين خل دلسنا كتب من جسوان كوحتوا ولي من قبل ذلك nadasiru kurama imaamu masjidihi muhammadul alami ne lu dëkk nag ci heure boobu ka dalee woo na ku tedd ka ka ilimaani jàkkaam ka ñu Moodu Wade ku lelet ka sëy naa isaa woo na ka akka lawa baadu bi amri abi xaale aadiru laana laana fi muqami mu ne ko Moodu Wade سبعي تفسير لك شكنا مجنيك بالله فيما تبدو سبعي تفسير لك شكنا مجنيك واحنا من كتاها وعيا يا سائلة وما تفسير لك واللي يلاهي وسيخ أحمد بن سعيد الألف تفسير لك أبو أحمد بن سكن من جنيه بليك مسيح عيسى وقتا من يوم وما يؤسسنا ان الامور كما يؤسسون لاهل ذلك الجسم يوم نهار وقتان من امور اي مر يو خمي تانا نكو وقتان جاي يلي وصيركم يا عباد الله فاجتهدوا مستمسكون بحبل الله بحبل الله لم تسمي لكن القوم كنا تفسير لك الشيخ احمد بامبا يوم نهار وقتان المنزل kon nag maa ngi leen di dénk yéen jaamu yàlla yi ngeen farlu te mooy yàlla ci buum bii nga xam ne du xanja bay dox te mooy wootu yàlla bi لولا الرجوع إليه لأمر مرتعدة قبل الإساءة بيوم الله في القرن جيل بنا من بوبك يا خم لما لا يوخ فاتوا أن تتاكس عن كي وأي بدهم يخرجوا عن الجن يي وأي نرى عن جنب جكنا كي شبه دماغ بطين شكرا yana kan ya tafan mene si sab si sabi isri na tilka leylu leylu ko lisneni isra ila mawlaahu sunyaani ñaar fukki fan la ak juróom ñaar ci guddi ga di guddi altine ca la rañaane jëm ci boromam si naay daal xam kaana muxtafiyan بين الإيمان بالليل أهل خريطي لخوف استعاني من ذات النبنة يلوكا لطهم نبكر mu ne ragal bi mu nit ñoom taalibe yi ca dëkk ba moo tax ñu nëbb nelaw ko ca waxtu woowa de lii lu tiyaani min daaril fanaay ila daaril baxaay ke leen si ànd fi xanani mu ne guddi bi fii dinaa isaa génne àdduna jëm àllaaxira boo bëggee xam na mu mel ci nit ña ni gën na leen di ko jëpp ci biir xaar loolu la taalibe yi dal keroog ci tiitaan bi allal kuroobaati inda yawmi muntafiran بين العباد اللي على العباد كلهم نعم دخل وكرا ندخل تفارون كرام شتان بيه دم تبقيا كل دخل كرام فقام سيدنا عمر خليفته مستحسن درد وصابر كان كانت غالب فينا من جهر كتوره موتو سنة أقرب أقفل من mu diisoo ci loolu am na ak taalibeem yu texe bi ay jihat min jihat si Seydina Imaam Allahi abdi rijaali kulli min waaye nag booba dañu ne dem leen yoo ca jàmmalaay ci ban boor lañu ko war a am booba booba loolu la ñoon fa yaati baxdahuma sambende yaxbiru ma usaaw Seydina Isaa bi daawaani ginnaaw bi bi ñu demee nag ñoom ñoo ñu doon seeti xamu ko foofa góor gi ñuy wax sambende nga wuutu leen daal di nettali la ko Seydina Isa waxoon fa qaala ayyu makaanin mittu fi siwaa Ndakaaru tabrukooni hunaaka mawdiu samani mu ne leen man Seydina Isa noonu na ma sam ndeng fu ma génn àdduna fu dul Ndakaaru nañ ma bàyyi foofu waaw in jaami lamru fi Ndakaaru fajjal sawfa tahsabuuni bi saakan waadi fi alami su ma génnee jokkul waroon ñu am bàyyi bi doon tey foofu ngir lu war a xam ngir du ma bokk sama bàyyi bopp nekk boobu tey naa mu jot moo war a dem foofu ne dëgg la fa tadrukooni bi kamoon in mittu fii fa aalamoo saaka fii lu laay fi lxidami fa tadrukooni na ngeen ma bàyyi su ma faatoo bi kamaran ci kamaran in mittu jeew faatoo naa fi a ci kamaran fa aalamoo ngeen xam ni sama faatu Cambérène loolu jëfi yàlla la mu mun a ngeen ma Cambérène soo fa faatoo ngeen xam ne man Seydina Issa su ma génnee àdduna Cambérène loolu jëf jëfi suñu borom waaw awalaay awalaay mooy ni borom daaroo borom daaroo Seydou Row laay ba yàgg mu ñu ak borom daaroo Seydou Row foofu nag ba ñu noppee ca wax booba rek waa Cambérène daal di kontaan nag la naan caabi kalaw mi ñax roona ali Cambérène daal di jiri mi fay këru gàddaay bi mu dal di bég nag sëy naa ma ñoom nag daal di taxaw ci mbir mooma ñu wax ci biir weer bi daal di yónni nag fa arsala baadu fi jëndil xubóor lii di boo makkaana royul xot si fil kadami mu daal di tànn nag ay gaay na leen dem leen ca armeel ya xoolal ma ban boor dañoo waroon sëy naa Issa ñu ne seen mbir nag kon na nga ma wax tur yi tur yi yëpp sëy naa ma dem sàmmoon a seet si fu mu waroon sëy naa Issa kay roog yàlla mu ne lësi na daane nga xam ni xëy saa boo demoon nañu di seeti bërëb ba suba lu wa Ibrahima la bokkoon wa Ablaye Gueye ak Ablaye Gueye Bama ca ka saa libaas am نبقى أنت قد قمت في التاريخ تيام ورمني حتى إلى أي أجل أجل إمام أحمد وعد أجل ما أحمد وعد سير وصمم من الظلام بأجل كان من يوتمون بسيط فني رفيدي سيدنا عيسى بل خلوني لما ولد بعد السعب باللسينة تعرف ما كان سيدنا عيسى ومدى ما بسيط بربه مستحسن كله لما أنت سافر لليلي la ñu diisoo nag ci ak càngam nag ba guddi ga xaajee ba nit ñu nelaw faxtaara laxyaaru min asaabil kurama li taxsiloo amoo bil xusli wal isawi ñu tànn nag tànnee di saabaam ya way cedd ngir ñu sang Seydina Isa waaye nag ñu mu ne ñu ngi ko sang ci kanamu jigéenam bi mu bokkal ku sell ku taxaw taxawaayu góor kuy borom jittee فتحضرنا اجلا ما يحتاجون به لكل اخر من صحبه ولا الغرب تسنى سيدنا عيسى دلنا كاني لحمة اليم الكتب ان شاء الله وانينا ولكفن اجله في مرسلا وكسا كان عصيا عجبا بخير الاسلام سنغا سنغا منو سنغا منو ورنا كيمان امو لك لديجو ينواو ndox ma ñu sang Seydina Isa fan la ñu ko jëlee ngir ndox ma ñu sang Rasulillah amoon nañu teen ba ñu ko jëlee ci Medina Munawara teen ya bëri woon nañu waaye bii xasta nañu rooti ji kon nag Seydina Isa teen ya bëri woon na fan la ñu ko fan la ñu ko rootale ak ku ko rootal téere bi ne maawun ataau masaar ñan saa baxaw maawoo indalu rooti bii miiri jan bi baxri mi mu ni ñu andi woon ndox ma ña rooti woon na nga ca wax masaar ñan ku ñu naa masaar ñan saaba xaw mbay ak saaba ñoom de ñoo rasi woon ca teen ba nga ne moo nekkoon ci booru géej gi mooy gën ba la fa nekk léegi ñu ne ko waaw gaa ñu rasi nañu ba andi ca teen boobu ana ñu ko sanga mu ne la sina xastalawu Malick bi kaay maawoo ma mbay gite Samba Njaay bi isil kërami nee na la sina gaa ñu nga xam ne xastalawu ñoo sanga sëy naay sa Malick maa ngi tudd Dakar yéen na ca maa ngi àndoon na ca ma mbay gisee ku ñuy wax ma mbay gisee Samba Ndiaye góor gu ñuy wax Samba Ndiaye bis ni seen këram seen ama ngeen waaye bul bàyyi ka saaka aadirawu suruloo kurama ahanii ma say ñan sul bu kaay fil urumi nee na ba tey bul fàtte kafa teewoon di boroom aji tedda ja ku ñuy wax ma say ñan waaye nag nee na moom mënul woon a sang taxaw a ngir jooy yu bari ngir yërmande ñu ne lu mu doon jooy mu ne ni rahmatin ولطيف سملو سكيا مال إياني كساوى رحمة اللمم يا مسيح دون جوي ñeewal te taalibe yi gàddaayam ngir wacc seen i dëkk ngir Seydina Limaamu ak Seydina Isaa mbooloom mu sell ma ak njabootam nga yërmandal amoon moom la doon jooy fa kafanoo bi aswaabihim daari munkasimin nee na sàng nañu ko ci malaan yu rafet ne génn nañu ko nëbb ko حتى فطيروا رجال لا يأتينا نحو تريح تلك الليل مهترم لا يكون سيدة عيسانا قولي يلا يو أجلاتي جمت كدر مكتبة صلى عليه خليفة هناك واصحابه عليهم الصلاة والله والسلام نجل لأنك خليفة مصافة الطالب متدى إصابة متدى نيخي ولك الله كمجم يا الله ما تسمم فنصر الله مسلم في صلاة على قوم لرحمة لطفا ما رحمة ne ba nga xamante ne amuñ woon tëral nañu seen ay saa mu tim ko ba mu ne allahu akbar nee na aw niir dotti na di taw ca seen kaw ba nga xamee ne nee na uma wa alayka salaam ne ne taw ba daan naa leen وترى بهم في خبيث ندب بهم إزاق الأمم هلا بلا خمين كبرنا déglu leen déglu leen naax leen boobu day boobu day du wax su wax ni ba nga xamee ne xëy naa ma jot ne ne allahu akbar nee na niir wa dotti na di rakk seen kaw ba mu ne assalaamu aleykum niir wa taxaw xad intaa al musnaf waxti tamaami salaati aajilan fa lillahi alhamdu fi lqidami moo tax mu ne toog fii waaye ba mu ne asalaamaaleykum kat ci la niir wa taxaw kon nag sant nañu yàlla mi borom ak jëkk mu ne la daal usuli fadl al xabri yadxulu fii famba yaasin bi ma di sada min idami ñu ne ko yow fii bi wax nanu wax nanu ñaroo ci ndox ma wax nanu ñaka sang wax nanu ko dugal ca kan ma moom la sëñ Mor naa bu tombe doon yërës mi ne siyénu ko kon du ko faaf danaa bàmmeel ba am ko kon du ko faaf danaa bàmmeel bi am ko kon du ko faaf danaa bàmmeel bi am ko loolu la sëñ Mor wax ba yàgg mu ne xat yàlla rabbi faayu lund maa yurid هو الذي خطا بها सजे nee na liggéey nañu ko liggéey bu rafet ba Seyna Issa riñaanee nag la weeroo riñaan ànd ak moom kon yàlla yàlla wàcc ci moom yërmande ak ñenam كذاك سلفوا ايضا واخره عليهم افضل الصلاه والسلام قبل سب البيت بعد دهنية صيلة والقبة ايضا لاكرام ما الاسم نسينا عيسى بنو كربي سمبني النبي بقنا وربك خبر نقه ترون نقه سلامة مقه تبارك جاو ساكن فضل اوسيو للخوف اتربو سمو الكساس يومي يلا يا رضل بركة انجنيل بعد رجوعي في اي خد بخاء عمر ان الضري مناجي ربو الكرم بني قربة بدل نمونة سينا من جان تسلفنا بديه يوحف برامم في خلاعنا لك وحدا عدة لدواي رحمة الله والخبران كله به ويبنا فورا فينا من جل مبرك دير بو يقد نيان يرمنا يلا ان جقلم يلا لك تجاوز ولاي ونسيما وعذابا ومظلومة ويمد الإيمان يخاب الثاني بجمع إيثار ولاي ورثباك يدرسه ولاي وتدهور दादा ما أم لأقل لدينك لكن الله لا يعلم لي نبي أسلم دمائل أنا أنا أو اللي قال لي من غرم الله سواري رجل لنا لقيت عم غرم الله سيارة رجل لنا لقيت عم غرم الله لبيك يا الليل يا جنة يا هاليوم من جاي النبي وكان يوم ينام لبيك لجينا من درم لبيك يا الليل يا جنة بقول dafa teg bari laa ñu meli du kenn ma doon soow ñaar dafa teg bari laa ñu ko ne na ko toogal pare na நல்லமேல நாமதே அவுல் ஜெயராமரம் நம்பே சேவாரிலே ஜல்லினா لكن عمرهم لبيل فليلا رجعنا لكن عمرهم لبيل فيعلم رجلنا فليلا عليه السلام saxbiyu yuxti isri laa yuxtaa bakka sa baaraam moo ni maadiyu moo may xañtu du ma may moom Moustapha yonent bi ngeen di dégg moo bind ne maadiyu yuxti isra laa yuxtaa maadiyu mooy xañtu sama jeexit du ma may ñu ne benn ñu xam ne nag nit mënul mënul jeex naa mën a mën a mën a mën a kenn mënu ko wax sa bopp moo tax ñuy wax ku baax ay ñu di ko tagg di ko way njol makke waykat yi naka doo dem déglunu yow noo la war a wax noo la bàyyi laay jàngul bàyyi laay loolu mu jàngul te yonent bi jàngul woon te bàyyi laay ñoom imra fi xisaali wa xawli wa fiyaali maa walaa kër yu la ñu ne moo koy jur dégg nga Cheikh Tidiane yaa ngi may déglu yaa ngi may déglu bu baax ah maa ngi ci yoon bi bàyyi ala san jur ala san moo ko ne waa tànk day ñëw na fi am nañ cee def seen ñetti fan mu rasuwaay bi mu nuyoo mu ne amaa noon waa noon fu ngeen jógee barab ñu ne ko saw janta mu ne barab ci saw janta ñu ne ko fu ñuy wax mu ne waa noon lu doon seen tànk ñu ne ko dañoo dégg na dafay fi tal jaar te jullit bu déggee fu ñuy fi tal jaar war naa walli mu ne tekk ba yàgg mu ne awaa noon dellu leen yéen diine leen di fekk si du ngeen fekk